xamal ne sa xel mi faxam xalaat yuy ñëw mën naa nekk xalaat yoo xam ne lu xamut la sax nga di ko xalaat bala mu do xalaat yoo xam ne lu xam la ba pare loo dund la muy lu neex walla lu metti waaye xel luy dund la te xel lu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw la te mën a fàttaliku te mën a créer mën a xalaat xamal ne xel mi soo ko manejee contrôle ko xam luy xel sa xàddina sotti te sa métitu xàddina yépp jeex na xel soo ko contrôle ko doo mën a xam happiness te sa métitu xàdduna ah foo ko xapp rek mën na ko rom te soo ko contrôle ko sa bakkan bi sax mën na jël te mën naa jël bakkan yeneen doomu aadama njaay muy xel xamal ne sa xel mi yim lay jox yëpp duut loo war a mën a xame ngëb ko di ko dund sa xel mi yim lay jox yëpp lu ci bëri lu bon la xamal ne sa xel mi nim la mën a dimbalee jox la bànneex jox la dal ni na la mën a yàqalee sa àdduna def na ci yow boo ko entertainer xamal ne ñun suñ xel mi num duxee suñ xarit noonu la duxee suñ ennemi waaye man nañ koo def mu nekk suñ xarit suñ best friend suñ liggéey ak moom te seetlu ko xamal ne sa xel mi foo toll mu ngi lay junj naan la aha lii xoolal li foog nga ne di war naa wax li foog nga di war naa def lii foog nga ne di lu tax deful lii yow sa bopp foog nga ne war ngaa wax lii yow sa bopp nga ne war ngaa def lii gi nga sa xel ko toppee fa lay puus ba nga def loo def mu di la ree naan la nga def rek nga li war nga koo def nga li war nga koo wax man de fi ne suba suba xëyee maa ngi gën a baqeel suma xel mi ci nit ñi nga xam ne sa sa xel mi suma xel mi def loo na ma lu ma warta def wax loo ma li ma warta wax si laa bokk nit kenn matut waaye sa xel mi soo commencé di ko baqeel gis nga sa mi soo ko oytuwut danga dund àdduna ba dee doo mës a gis piyo bànneex ndig sa xel mi gi nga sa xel mi fa lay def nga rëyit aha nangam bi bu ko nangu de da di lu tax mu def nangam lu tax balu laax ci lële bul nangu lii de nangam bi nii waa aha kii lim def rek waa aha kii lim wax rek foog nga ne kii war na laa wax lii foog nga ne kii war na laa def na li kii sa doom la pare di la def lii kii sa lii la warul laa def lii kii nii kii naa gi nga sa xel mi boo ko toppee boo focus si moom doo xamati benn liggéey ci àdduna lu du mi rek sa moom dëgg mom rek moy do sa liggey te su boobaa na sa xaat boo demee man ko gis nga buñuy wax ne nit su la buggé fa wara ba yenen jikko yi nga xam mu ngi ko xamé wala yenen yi mi def te yow neexul la waxuñ nit ko xamné fa te fiir te mëna nit magam jëm mu taxaw nga ne yow nga koy contrôle bu ne gu xam juroomi at sa xamné yenn contrôle yo koy def du mëna xam jamm ak yow waxuma la ak gi nga mbuggeel boo ko defee nit te ne nit ki nga koy contrôle du xam jàmm fu mu ne fa fay dem nga ne déedéet lu mu ne fa koy def nga ne déedéet ah nit du mën a happy te ku happy wut du la mën a jox happiness gis nga happiness fa mel ni teen boo xam ne yow yaa ca war a dem root ndox ndox ma mooy happiness bi borom xamee di la ko jox nga di ko root di ko jël ci borom mu di la ko jox teen boo xam ne mu nga ngacc wow koŋ yow mënoo caa root ndox gis nga buñ la ne nit ki lu muy def lo xamné ni baaxut fa ko wara ba su fekkee bugg na la waxuñ la ni ko xamné ne la muy def dara néew ca yow la neex nga fiir te naqadi dara ta mën a contrôle nit lool taxul may wax nit ñi nga xamné ne dañ feete du niti dëgg nexuñ di la contrôle di la fiire comme ku dof yow la neex ngay def sa jikko ju bon nit ñoo ñaa tax may wax baxal leen ma gune tubaab ñoo ne fele ci seen garden bi deen man di yuxu gi nga fa xam nit ñoo xane seen gamu gi kenn mënu ko wër ñooñ taxuñ may wax yu ëpp yi yenn nit ñi dafa tax may wax waaye it fa xam ñun ñoo xam ne jarul sax ñuy dugg si mbuggeel mhm. ndax yenn mbuggeel yi doo ci mën a ba pare mbuggeel ci boppam yenn jikko yow doo ko mën a xamee te ngay bugganteeg nit ndax yow doo mën wax ne sori ma doon xoo fa xam yenn mbugeel yoo xam ne yenn jikko yoo xam ne yenn nit ñaa ngi koy xamee fa ñuy sonnal nit ñi suñuy dugg si mbugeel ndax fañ parewul pour dugg si mbugeel comme ça man tey for exemple yenn yi may def ci suma vidéo yi ndax su ma xamee woon jëkkat tey jëkkat ñëw takk ma fekk ma ci vidéo yi ak vidéo yi li ma ci yàgg-yàgg ndax borom bu ma nee nangam ak nangam de bugg naa nga wecc ko sa vidéo yi ma ne ko duma ko wecc ndax loolu su waa pare naa si borom su fekkoon wax ne ma ne ngay ba vidéo yi sax totali loolu fañ ko war a wax balaa maa balaa maa borom a takk man fi ne nii ku ma bëgg a takk dama la dee laaj ndax vidéo yi ngaa bëgg ma ba ko wala déet ndax vidéo yi man xam na yoo xam ne bu ma ko xaar dinaa ko mën a ba waaye du ma a ba yëpp yu xam fayda yi may wax ma ko war a wax ak borom ba lañ cee dugg waaye su fekkee ne borom tey par exemple ñëw na ne ma baxal naa sa nangama nangam yi ngay def sa vidéo te xóor na ma ne man sama bu yooyu bu ko borom doon def ci vidéo du ma neex ma lànk kon pare wu ma sëy ñin ñun nak ñen ñi ci ñun fa ñuy wax ne jël ma noo ma rek yow jëlal borom noko fekke bu dee la muy def jaadu it jël ko loolu jaadu jaaduwut ta ku koy def pare woo xam jëkkat wala jabar yàlla nañu yalla may jamm rek gis nga mbëggeel bu baax deug ta neex ta deug boko xamé yow sa bop nga koy xam fo jinne jàppul la waaye gi nga buggeel boo xam ne fa ne borom do nit ku mat sëkk du masa def lu nakade. naqadi du masa wax lu la fa façon ngi Wow. boobu video waaw suma vidéo yi li ma ciy wax mooy nit ñi nga xam ne kenn mënut leen a bugg ndax fa mel ni ci seen bopp bugguy seen bopp gu bax guñ xam yàq duñ wax dëgg duñ respecté nit surtout ku ñuy buggante jos neex ak yow te sa naqat ak sa jàmm seen yoon néew si mbala buñ la bigalee benn yoon téeméeri naqat ñu teg la ko fa mel ni fañ lay bégal rek comme narcissique ni ñu nit ñi narcissique yi ni ñuy def di la xuufa bégal la tuuti pour nga ñëwaat ci ñoom façon ngi nit ñoo tax may des mo vidéo yi may yi may wax waaye mbugeel gu ne cocc ni sondeel xamut waaw doomu aadama njaay ci boppam moom matu fii ku fi xam mbugeel gu baax gu dëggu goo xam ne borom ko baax la dafoo jinne jàppul la ka fontoo ko bam raw la tur ki jam danañ la robi wala da nga sonn mbëggeel gu bax te deggu fa naqadee xam te hadina si legi nit ñu bax ñi mëna bugg degg ñi ci def ñoo hut xana ñi ragal ñi ba melni Ami Jóob ñoo ci dess du ne man ma mëna bugg degg lay man ko goré la nangam wala man suma man may de bes dede way man suma buggee dof lay do mu ci doggu ba jeex tak lool moom man te nit kuma buggit su borom nit kay def ma nit man dana koy def nit ba ba ba lool man na ko te duma ko rusa wax waaye du ne man may the best passer xamna na yeneen ak yeneen nit yu keneen manta mënuma ko waye gis nga mbugel gu bax boko xame fi bam raw la mbugel gu bax dang ko reccu ñu bëree ngi xam mbugel gu bax deug di ko ci lu ñak fayda das the reality ci lu ñak fayda waaw nit ku mat xamut mbugel gu bax boko xame nga koy ngëb su borom defé yenn yi lo xane fa le metti nga wax ak moom si ak teranga waxat ak si ak teranga yu ci bëri su la borom buggee momi dana ba waaw waaye nga muñal ko waaw lu rek la bu ko wax yal nañu yalla may hallo assalamu alaykum ma ngi ni la taxaw ci biti taxaw ci suuf ci filé ak a jël ci waaw mu jeexuma dem doxima gune Fatou mom dem na dox mom dox na lopp juroom ben kilomètre kenn aadi mom dem mu nga toog sa gémam ya waaw waaye man tey dew ma ndég li ma exercice fa yàgg ñaari waxtu mat na ko moo tax ma ne fa far noppaliku rek ba subaa jàmm su ma xëyee faatu wax naa ko ne bu subaa jàmm suñu xëyee dem maa moom ak aadi balaa ñoo dem fële ca ca Midos su dee danañ mën a dem ci suba gi waaye loo loo taxul ma clic bi sax li tax ma clic mooy fàttali leen ngeen taxaw ci suuf si ak also di leen wax ne ginga nga nit booy bëgganteeg moom ah te nga wax borom ne ko nangam bii ngay def neexut ma nangam bii ngay def fa may metti di ma jox métit di ma naqadi wax ko ko ci fullaak fayda hmm? borom faalehut la continuer di ko def nga wax wax faalehut la da reality is borom faalehut la buggut la ni mu waxee ne noonu la la buggee te faalehut la ni mu waxee ne noonu la la faale fa la ngir njëriñam ak interessam di la balaag mel pour nga continuer di gëm ne bugg na la pour mu mën continuer di la yous lool moy dëgg gi fa naqade gëm nak bo ñëwee ci façon yi buggeel yoy yo sa bop fa lay leer ne ki falihul la waye do xam noy def ndax bugu ngi ko bugu moy tax ngay ragal ba do ñemee nangu sax ne falihul la ngay fogné xejna nit kenn matul motax wala nangam té nit ñi def loolu ci bëri feeñ mën a wax te mën a balu xàq te mën a ulbati problème bi nag def ko ni yow yaay sikk ki waaye the reality fañ la faalewul waaw faalewuñ la yow ni nga xam ne noonu lañ la war a faale moo tax jaraloo leen ñuy wecceeku te te lu ci bëri du ñuy masa a wecceeku waaw xanaa ñoom ñu mit xam keneen koo xam ne kooka moo leen jaral wecceeku waaye yow jaraloo leen wecceeku te xam nañ ne liñ lay def jaaduwul te ñoom la neex ñi di ko def ba pare nag ulbati problème bi mel ni yow la waaw loolu fa xam te te te lu naqadi la te te jaaduwul ci ñenn ñi ci ñun ñi nga xam ne danañ koy dund waaye xaddina noonu la fa ñuy jàpp si yàlla rek suñ nee ci façon yooyu waaw soo mënee génn nga jàpp si yàlla génn yu si bari looy mën a génn la waaw jàpp si yàlla bugg nit neex na waaye bugg sa bopp moo dàq. waaw ndax nit ki loo ko bugg bugg bugg moom su la buggut baag respectut la baag loolu rek du doy pour nga xàppi sa mbugéel gi rek du doy ci naqat ngay dëkk kon nag ngay bugg sa bopp yow jël mbugéel ga delloo ko sa bopp respecté sa bopp def lu lay may jàmm soo fa mënee génn nga génn fa jàpp si yàlla keneen dina ñëw waaw yàlla nañu yàlla may jàmm rek